di leen sant ci daje bi ñu fi daje su seeni waxtaan waxtaanu diine billahi wa rasulihi waxtaanu lislaam bi nga xam ne moom la ñu bokk di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ma ñaan waxtaan wi ñu tànn seen sujet mu di tasawuf wa Cheikh Ahmadou Bamba maanaam tasawuf ak sëriñ Touba tasawuf xam ngeen ne nekkul lu jege xel yi ñëpp nekkul loo xam ne mën nañ koo dal di waxtaane nit jóge fee rek ak si dal di koy dégg nañu ko waxe ndax lu xaw làqu la mu jafe la lu néew la itam rawatina jamono bi nu nekk kon bala ñuy waxtaan tasawuf dana am lu ñuy wax tam it maanaam introduction tàmbali boo xam ne day leeral li ñuy bëgg a wax ba ku ci xamul woon dara bu ñu ko waxee nga mën a am loo ci dégg xam nga ni tasawuf ku wax tasawuf wax nga diine kon kenn du waxtaane tasawuf te waxtaane diine faw nga wax tasawuf nan la demee ci diine mooy ci lan fu mu jógee ak fu mu jëm lu muy jëriñ lan ko tax a jóg lan la ci nit mën a jële lu tax mu nekk ci kon bu dee loolu dañu gis ne diine ñetti xaaj la bu nu neexee ñu ne al iman wal islam wal ihsan bu nu neexee bu nu dee wax xamuk fànn yooyu nu ne tawxid fiq tasawuf liman mooy gëm julit bu ne li njëkk a war ci moom mooy wéral gëmam nan la gëm di wére loolu lañ tuddee tawxid xam nañ ne téere yi dañu jàngale tawxid lépp li nga xam ne mooy melowu yàlla melowoo doomu aadama war ko xam li jomb ci moom li dagan ci moom li war ci moom ak nin ko war a fase yonentam yi lan moo jaadu ci ñoom lan moo war ci ñoom lan moo xaraam ci ñoom nu jàppal leen ko malaayikaam yi noonu bu nu xamee loolu ba sunu gëm wér nu dem nag ci li ñuy wax fiq moo di atte sharia xam nañ ne iman day maanaam gëm neenu ictiqaadun bil qalbi wa qawlun bil lisaani wa amalun bil jawaarixi dañ koy war a fas ci sunu xol ni yàlla bëggee nu fase ko ni wax ko ci sunu lamiñ ba ñu déggal nu ko nu jëfe ko sunuy cër loolu moo dajale tawxid ak soq te suuf ñëwagul xam nañu ne borom yi lim nañu fukk yoo xam ne jullit bi balay ngëmam a mu gëm fukk yooyu léegi dana war na dogu ci amuk yàlla buur la boo xam ne kenn sàkku ko sàkkul boppam te jekkiwul jekki am tàmbalewul fenn naka jekk fi la ko fekkoon du lot ci dara lu ko sob dong ngay daw ci nguur gi moom doo nga bind asamaani juróom-ñaar suufi juróom-ñaar arasa kursi lépp lu ñu bind moom moo ko fi def te kenn dimbalewu ko kenn fekku ko ca coobaram dong mooy daw ci jaam ñi nga daal di gëm ne am na téere yu mu wàcce ci jaam ñi mu di leen xamal seen diine ngir ñu mucc ëllëg faaw nga gëm téere yooyu seenu am faaw nga gëm ne yónni na ay jaam ci nit ñi ñii mu yónni leen ci nit ñi ak jinne yi ñooñu am na lu war ci ñoom ak lu jaadu ak lu warul xool nañ ko am na ay malaayika it yoo xam ne ay jaamam lañuy sell yu mu bind ci leeru kese du ñu moy mukk yàlla du ñu lekk du ñu naan du ñu sëy amuñu bànneex du ñu mer seen tabia maanaam seen nature mooy sellal yàlla ak jaamu ko ak wéy ci digalam laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun gëm ne dañuy dekki bis ba xam ne moom la yàlla dig wax ko ci alquran jaam ñëpp dañuy dekki gëm dogal bi lépp lu am yàllaa ko dogal amul benn peppu serra wala pepp suuf wuy randu jóge ci palaasam lu néew néew te du yàlla la soog mu nam ma ko dogal ko gëm ne am na balance yoo xam ne ak nu mu mën a demee rek lu ñuy peesee jëfi jaam ñi ëllëg la ci bis bu màgg boobale am na bom bu ñu tudde siraat jaam ñi daañu ko jéggi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na mbalka mu tedd moo xam ne xeetam li daañu ca naan ëllëg ku ca naan dootoo mara ci mukk ba abada àjjana am na ak safar fukk yooyu mooy tawxid teewul nag sax nit ki bu ko faxee ni ñu ko wax xam ne yooyu yëpp am na daan nangu yi maanaam ne jullit la duñ ko eh, mun sañuñu ko excommunier maanaam sañuñu ko génne ci biir communauté musulmane bi waaye nag li ñuy wax tab di maanaam bidaangu fu ci kaw na mu fasee yooyu bu fekkee ne nag nit ki dafa gëm yooyu te booliwu ci benn bidaa ni ki secte yi ñu tuddee dissident yu demee ni ki muxtasiluna yi wala yu demee ni rawafid yi wala qadariyuna yi wala yenn chia yi dañ naan kii bokk na ci ahlu sunnati maanaam pas pasam rafet na wér na te amuñu dara luñ ci sikk waaye xam nañ ne loolu doyul loolu doyul pour doomu aadama bi mucc ndax bu gëmee ba noppi dafa war a jëf gëm nga gëm ci xolam wax ko ci làmmiñam doyul waaye xamuk loolu lañu ñu tuddee tawxiid bu fekkee nag dikk na xamle ne boppam tudd loolu ba ñu dégg ko mu nangu at yëpp di jaar ci kawam bokk ci communauté bi boobu la soog a def lislaam lii man la amoon léegi am na lislaam lislaam moo di fekk moo ko atte mooy sharia lan la lépp loo xam ne rot na ci làmmiñu ki nga xam ne moo fi indi sariya mu di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gëmee ko noonu mu ko waxee fiq nag mooy atte muamalaat yi ak ibadaat yi muamalaat yi mooy jëflante doomu aadama yi bokk nekk ci kaw suuf seen diggante di ko atte diggante nañu war a jaayante nañu war a jëndante nañu war a defee ay contrat nañu war a atte ay société nañu war a séye nañu war a dëkke loolu yëpp ba ci ibaadaat yi nga xam ne mooy na nga war a jaamoo na nga war a woore na nga war a jullee na nga war a joxe asaka na nga war a génne muurum koor mooy ibaadaat yi xam-xam bi nga xam ne moo traité ñaar yooyu muamalaat ak ibaadaat ñoom la ñu tudde fiq mooy lislaam kon lislaam ak iman am na bu wuute alquran wax na surtout majid qaalat al arabu amanna qul lam tuminu walakin qulu aslamna sàmm si dañu ne gëm nañu ne leen gëmu leen kay da ngeen a nekk ci biir jullit ñi rek atte yi di daw ci seen kaw ngeen nangu ne jullit ngeen xam-xam boobu ñu tuddee de bi nga xam ne mooy yéwénal jëf yi ku ko xamul say jëf du mën a rafet loolu moo tax nim lay jàngale na ngay jëfanteeg sa morom doom aadama jàngam la na ngay jaamoo sa borom foofu rek la kon du li nga xam ne mooy amee muccu jaam di dëgg dëgg ndax nit ki mën nay julli di woor di def li julli bi def lépp te du dëgg ci moom ndax xam-xamu fëq nit koo xam ne adduna rek la bëgg mën na koo jàng ba xam ko benn ngir dafa bëgg daraja wala dafa bëgg place dafa bëgg di àtte wala muy ubbee amaana sax bu mu wowalee xol ki nga xam ne ci la gàttañ lu xam-xamu faq rek ci la yem bu fekkee ne nekkul koo xam ne dafa fab àllaaxiraam teg ko ci kaw addunaam di ko xalaat fu mu boroom borom xam-xam boobu nga xam ne xam ne faq te soxlawul tasawuf xam-xam bi mën na koo jëmee ci werantee rek ak dàgge mën na koy puukare woo mën na ci rëy rëy lu ci kaw jaami yàlla yi amaan sax mu defee ne loolu mu xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekk fu bu ko defee ak perte la koy dikkal ëllëg ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr ci saaba yi seen jamono bi ñu si nekkee buñ masee ne diw day ku xam diine la mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid fiq tasawuf lépp a ci nekk moom lañ daan wax bu xam diine bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko torop kenn nit rek féetewoo lépp di ko jàng dana bari ci moom ñu daal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus maanaam rek euh, ñii féetewoo jàng tawxid rek ñii féetewoo jàng fiq ñii féetewoo jàng tasawuf loolu moo tax ñen ñi nga xamni ne rek liñ xam japp ni ñom li ñu xam moy xam-xam bi dong doy na la rek pour nga xam digënde fiq ak tasawuf nga japp julli tay wala gu yalla gu mu doon fiq dafa naan la bo xabe ndox mo xamne dara fa tikul ci mom du melom du xetam du nga jappé ko jublu penku kabar suturaal sa awra béréb bi nga nek laab li nga sol laab nga jang fatiha ak ba def ñetti muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbaar wala gee def nga di la waroon kenn amatul lu mu lay wax te foofu moo lay xamal ne la léegi julli déeyaaleeg yàlla la li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi di ngay jàpp lu tax ñu sant la ndox moo xam ne dara ko wala moom ndox dafa am li ñu wax rawxaaniye rawxaaniye ma lu ko mën a tekkee ci wala moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërmande yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba bi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree woon nga ne da ngaa signé ak yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmal moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli fuqaha yi ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jàmbur ci biir julli ngeen di julli xaalisam a nga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari wëlbati koo woon gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo araam it sa julli wér na lépp loo mën a def tuddee sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbare ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi deeyaaleeg moom alxuraan ji ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu bi nga ko lunk gi nga lunk da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toroxlu boobu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci sa xol boo sujjootee itam li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jaam waxtu mu gën a jegee boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg wane nga ne wàcc nga wane nga ne yaa ngi yàlla kat maa ngi lay jox sa xaq kenn ma ko mënee sharia moo lay xamal ne la xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci gunt këram bis bu ne mu sangu ci juróom yoon wala bis bu ne mu fóot ci juróom yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonante yàlla bi mu ne leen noon la julli juróom demee day laabal xol ci muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toroxlu defe ko nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada ji mu ko aada woo tàmm rek day kabar xelam di dem ci yeneen ba bu muy sëlmal kooku bu ko borom fekk yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla kon bu ñu bëggee fonk tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee al muminul xaq jullit dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxiid jàng faq ba noppi balay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko léwul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax lislaam li mu njëkk a sant muñu ci jiitu sallallahu taala alayhi wa sallam nee na as sabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqarin ni mu ko waree ci lu metti ware ko ci naqar lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko ware ci bu nekkee ci xéewal ndax li ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo bew da ko sant na nga ko war a sante du la tax rëy du la tax a buuk réew ci kaw kenn da wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa muñ laaj na julli julli ci boppam maanaam laaj na muñ asaka laaj na muñ koor ma laaj na muñ aj noonu naafil la noonu jihaar noonu beru noonu ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla béréb booba du fa am dara kenn du ko fa fay kon faw am na waajtaay wu mu war a waajoo ba lay dugg si julli gi te bu duggee si julli gi it am na lu ñu ko sant loolu dañ ko waxtaane bala muy dugg ci tasawuf ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am nag doyadi goo xam ne na nga war a teewloo ci julli mënuloo ko waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg ci julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yéwénal sallallahu taala wa sallam génn jëm ca jàkka ja ba mu demee ba ci yoon wi mu dal di wax ku wax Ousmane ibn Talha man de fàtte won na ne la nga xoram kadir ga ba nu fay jóge ndax day bañ bu nekké ci julli gi waajooju bu nekké ci julli gi mom Ousmane wala da nga xamné ne Ousmane ibnu Talha la wax wala keneen ko xamné fekke na loola te dana nekk ci ñam wa dem ci kadir ga loolu motax wala wax naan bu julli teewee reer teew nañu jital reer ndax sa xel bañ ca dem gannaaw julli kon de yalla la laaj na bala nga ciy jëm lépp lu lay war a delloosi ci àdduna wala mu di ci delloosi sa xel war nga koo dagg ba noppi alaaq yooyu yëpp boo ko daggee da mën a julli mu des nag wasaawi si seytaane maanaam jax-jaxal di seytaane di jax-jaxal ci sa xol loolu li koy dindi bala ngay dugg si julli gi war nga fàttaliku waxtu woo xamee ne tëral nañ la ci sa bunt bàmmeel war nga bàyyi xel ci laaj to bi ñu lay laaj ci sa bàmmeel ñaari malaayika yi war ngay xalaat bis penc boo taxawee ci kanam yàlla loolu moo tax yonent bi ne nit day dana julli ba sëlmal te duñ ko bindal sax genn wàllu julli gi duñ ko bindal sax kaaru julli gi duñ ko bindal sax di ko wax ji wéy di wàññi ba nga xam ne da wane ne nit ki daal xam nañ ne julli gi coono bi rek la ci am naka noonu asaka mu ñee tax nit génne ko ne ñu alal shaqiqu rooxi dafa sax ci roox lii tax nit ci génne ko gëm yàlla dëgg lay doon waaye bu xamee ne day laabal li des ci alalam day laabal xolam te ngërëmal yàlla la ciy wut dana am muñ googu nga xam ne mooy tax mu mën a génne asaka doomu aadama bëgg la te bérébam ci nit mooy xol ku nekk xam na ne xol mooy bëgg lii man maanaam ngëm itam fii bérébam ci nit mooy xol ñaar bu ñu bokkee lenn di ko xëccoo te mooy alal wala bëgg àdduna muy xëccoo xol mook ngëm la ëpp doole rek mooy wat bi sallallahu taala wa sallam ne raaytu abdurahman ibn awf yadxulul jannata habwan gis naa saabu bu ñuy wax abdurahman ibn awf muy raam di dugg àjjana wala maa yi ñu ko firee moo di dañ ne abdurahman ibn awf ku bari woon alal la dafa bari woon alal lool waaye ngëmam itam ku réyam ngëm la ku sonn ci lislaam la ku toppoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la te li ma waxoon nag ne alal xol mooy saxuwaayam ngëm itam xol mooy saxuwaayam bi nga xam ne ngëmu Seydina Abdourahman ibn Awf boobu mi ngi koy xëcc jëmee àjjana alal ji di ko xëcc di delloo waaye ngëmam moo gën a for neexaa neexaayu alal bi ci xolam ba tax na mi ngi koy xëcc jëme àjjana waaye gën a for gi mu ko gën a for teewul mu di ko delloo ci ba ab demam yeexe ne kuy raam aw aw muy raam di dugg àjjana kon nit ki bu fekkente ne xam na ne xellkat moom ah alalam ji muy génne lu ko yàlla sant la te sañu koo bañ te bu ko deful loram la bu ko defee njëriñam la ëllëg te fam koy jëriñee foofa la njëriñ di neexe kon ngëmam googu dana ko dimbali ci mu def war-war bu yàlla boobu. mu kan koor nit ki bu wooree. te li mu bëgg lepp mu di ko gis man ko muñ eh, muñ dong ko koy may motax yonent bi ne asabru nisful imaani kon julit war na yéene fu mu toll di ko yéene warna war nay lu baax di tere lu bon fu mu toll ndax képp ko xamne neñu bëgg nga xam fan nga toll yalla na nga xet taxol fan la ca yalla toll gannaaw képp ci nun ku ci nekk sàmm nga boo xam ne daañ la laaj ëllëg li nga doon sàmm te daañu la laaj ni nga dëkkaale loon ca àdduna xaq yi dëkkaale ndax sàmm nga ko ba mu mat wala déet daañu la laaj sa xaqi doom ndax am na yoo xam ne doom ak waajur daañu ko layoo ëllëg daañu la laaj say jege ñaale ndax na nga leen waroon na taxawoo la nga leen mën a defal nga leen ko ba ci jàmbur ñi nga xam ne ay la lañu ne yow loolu moo tax yàlla ne wallazina jaahadu fiinaa lanahdiyanahum subulanaa daañu nga xam ne jihaar nañu ci nun yàlla daanu leen jaarale sunu yoon nee na man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan képp ku ragal yàlla na ko war a ragale suñu borom dana la ubbil la musal ci sikk yi ak lënt yi kon faw jaam bi war nay fàttaliku ngir mu nekk dëgg-dëgg jullit wala na ragal boromam xam ne ne dee ngi ci kanamam te mënu koo jéggi mënu koo fu mu wëlbati ko rek dana ci daanu suuf biir suuf mooy sax waayam na xam ne seen la ay sax rek ñoo koy wéttali ci bàmmeelam na xam ne ñaari malaayika yooyu ak la yooyu ñuy wax munkar ak nakiir ñooy ñoom fay te seenu melaw na la ko yàlla nëbb na ko wóor ne léegi foofu mu tëdd rendez-vous bi maanaam fa muy kañ la jugati mooy saa yow ma xiyam rek te boobaa bu fa jugee ñaari kër rek a am benn mu dem àjjana wala mu dem safara te na ko wóor na lépp loo xam ne luy ñëw la rek lu jege la loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baadal mawti ci am xel dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne toroxal na ba kanam te xeex ay bànnee xam ba wute ñoom te jëf ngir la nekk ca gannaaw dee mu tax suñu borom bi nekk talaba dinaa ci xisaabuhum bohum fi xablatin muxraduna bis bi ñuy xisaab nit ñi muy gën a jege rek waaye nit ñi di gën a sàggan rek di ko gën a wën gannaaw àdduna nag géej la ñu bari lap nañ ci te ku ci lap ba watul dootoo dellu siwaat ndax lap ci àdduna day sàggan loo xol sallallahu alayhi wa sallam nee na yusibu ibnu aadama wa yusibu maahu xaslataani al xifs wa tuulul amal doomu aadama lu mu màggat màggat lu mu yàgg yàgg ci àdduna am na ñaari jikko ñoo xam ne du tàggu mukk moom lay màggataale moo di xër ak mébét mu gudd nee na walaw kaana li ibni aadama waadiyaani min zahabin labtaxa lahuma saalisan doomu aadama ku xër la bu fekkoon ne nit am na ñaari xur ñu feesalal ko ko dell ak wurus faw xelam dem ci weneen xur bu ko ñetteel nee na biir doomu aadama daal suuf rek a ko mën a jomb nee na min annaasi man yamuus nisfuhu wala yazdajiru nisfuhu al axar am na ci nit ñi yoo xam ne raw nañu raw koo xam ne bu seen genn wàll dee woon ba dee koy itam genn wàll gi ci des ba tax ñu jàjju mukk dellu si dañuy wéy rek waaye képp koo xam ne sib nga dajeeg yàlla ëllëg yàlla sib na dajeeg yow ëllëg te adduna moom la yàlla gën a wayafal ci magum yoo yonente bi dox benn bis ay saaba ànd ak moom mu dem ba fekk xar mu dee ñu sànni ko mu nëb ba kenn mënu koo jege mu ne xam naa xar mii day seen borom bëggatu ko ñu ne ko ñàkk koo soxla moo tax ñu sànni ko fii mu ne mu ne day ni suñu borom soxlaa dee adduna moo raw moo raw ni ñu soxlaa dee seen xar mii waaw nenu adduna ba nga xamee ne dañ koo peese ak laafu yoo laafum yoo ma wat ko fa yàlla bu fekkonte ne yem naag moom rek kon yéefar bi ci mos benn góox waaye bu fekkee ne nit ci loolu lépp mi koy xalaat dana ko dimbali ci mu jëf jëf yi ko yàlla sant ndax mu mën koo rafetal yonent bi salaa alayhi nee na suñu borom dana xañ nit adduna bu yomal xiyaamee bu koy fay ne ko adduna gi li ma la ko xañee woon démb du dara lu dul fonk gi ma la fonk rek ak doyadil gi ma doyadil adduna moo tax ma ëppale la ko na doomu aadama bi bu fekkee ne bëgg naa nekk jullit bu ragal yàlla na xelam di xalal dem ci sukuraat dee ak xar-xarle na xelam di dem ci waxtu bi nga xamee ne yaramam sottiku na ba métti yi tasaaroo ci cëram yëpp te benn cër rek bu dee métti xañ ko jàmm waxtu woo xamee nag rawatina cëram yëpp métti na ko biir ak bitti ba ñaari nag yu bëtam yooyu bokk ko jëm kaw tuñam yooyu la gàtt lam ñam wi ci biir gémmiñam ba cëram yooyu yëpp commencé dee ba ñaari tànkam yi di sedd ba muy àgg ci kudam mi foofu ay mbóot am na fi ak i secret yoo xam ne suñu borom dong nga ko xam ci waxtu woowu la ñuy ub buntu tuub bu waa ji tuubatee kenn dootu ko nangu innama tawbatu lilladina yaamaluna aswa bi jahalatin suma yatubun min qaribin wala yatubuna alayhim wa kana alim wa laysa tawbatu lilladina yaamaluna sayiat hatta ida adra ahadahum lmawt qala inni tubtu lana wala alladina yamutuna hum kuffarun alquran nee na tuub ki nga xam ne dafa def lu bon gannaaw gi mu jàjju dellu siwaat la ko yàlla indi waaye bu ki nga xam ne dafa nuur ci lu bon ba nga xam ne dee xaw na mu sonn na léegi tuub na loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bi jëmm ji tolloo dañuy ub buntu tuubam lu mu tuubati léegi dee du ndax foofu ci waxtu woowu la naan jàkk malaayika malakul mawti bi nga xam ne moo koy faat si mu ne bu laaj mukk wextanu dee bu laaj mukk tiisu dee ndax sallallahu alayhi wasallam li muy tedd ci suñu borom lépp ak lim koy fonk nga xam ne lim bind lépp moo ko ci gënal dafa daan ñaan suñu borom di ko woya falal waxtanu dee ak tiitu dee jële nañ ci alxasan mu ne yonente bi salaa sallam ne doon na waxtaane dee ak tiisam ba mu ne ñetti téeméeri jaas yi ñu la dóor dee ko gën a metti mu ne dee gi gën a woyof mu mel ne lu ñuy wax xaska ci arab fent la ko tubaab di wax moo di gis nga xar moom nga xam ne dafa duuf ba duuf duuf am leen ci ci gannaaw gi mu tëdd tàngaay bi jàpp ko ba deret gi seet ba taq ci leen bi ba wow ba ñuul loolu mooy xasata mooy fent boo ko jàppoon di ko xëcc ci xar mi leen bi càmpoori leen yi dagg topp ci nee bu ñuy rocciru gi noonu la demee fépp fu nekk ci yaram la xam ne moo ci gën a yëg metit noonu lay toppee ruux bi Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu laajee Kaab naka la deemel daf ne ko caru garab boo xam ne dafa fekk dell ci bépp lunk nekk ci biir nit ci ba bépp cër ak bépp barab ci biir yaram bi dëkk siiw na ca bonkal mu am doole ñëpp lu ko ne ko bif benn yoon noonu la mel ñu gis ne kon ci si dee ñett yii la benn bu njëkk bi mooy rocciru boobu ñu wax ñaareel bi mooy janloog malakul mawti malakul mawti yu doy waar la waxtu woo xamee ne jàmm bi ne na ko jàkk xamatul fu mu nekk xolam sax day bëgg a seey xam ngeen ne xel li jinne sax boo ko gisee dama fas li yéenee saay saaye doo ko mën a dékku benn sa xel dana réer wala nga dof rawatina malaaka rawatina nag malaaka mi nga xam ne yàlla daf koo xaroo pour ay noonam rek mu di leen naqaral di leen tiital dégg ngeen ba tàyyi ñu ne sallallahu taala wa sallama sayidna jibril li mu ñëw ci moom lépp daf daan indi melaw nit ku tedd wala melaw rafet wala melaw ku ñu xamoon lu gën a bari ku wax dexeetu alkalbi yi melawam la daan indi waaye ñaar yoon wala ñett la ko mas a gis ci meloo ko yàlla bind dëgg dëgg te sallallahu alayhi wasallam bi mu gisee sidna jibril ci meloo ko yàlla bind dëgg dafa xëm ba mu ximbali ko sidna jibril ne ko ay ngal la kon boo jotoon mikaayil na ngay def sayidna ibrahima alayhi salaam mas na laaj malaku moo ne ko dama bëgg nga wan ma melaw yi ngay dicté boo dee rocc ci ruuxu ku texee bi mu ne ko loolu àttanoo ko bu ma la ko wanee nga dee mu ne ko man bëgg naa wan ma rek mën naa ko bi mu ko feeñoo bi mu xamee xëma xëma xëma xëm ay saa bi mu ximbilikoo dafa ne giñ naa ne suñu borom bu amuloon benn mbugal bu muy mbugal ku ko moy lu dul xool la yow mii rek doy na sëkk kon ci mbugal boobu la kon ñetti tiis yooyu mooy tiis yi dee jullit bu ne war na koy fàttaliku waaye waxtu woo xam ne ruugaa ngi rocciku li nit ki njëkk a gis lan la njëkk a jàngal mooy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi jëf yu baax yi dana meloo meloo xam ne daan ko waxtaane jëf yu gën yi dana meloo meloo xam ne gaaw dem dugg safara sax gën a moo koy gën a jàkkaarloo ñoom ndax ñaaw rek ak tiis ak xasaw ak naqari ak raglu loolu lépp lu nekk téere bu nekkoon ci xolam moyam yooyu yëpp bind nañ ko ci waaye attache terrestre yi ko dot ci àdduna bi ba tax na nekkul esprit kese moo tax mënu ko wane gis bis boobu nag wax fi mu tolloo foofu te suñu borom ne fa kashafna an ka ribaak fa basirka al yawma hadidun sallallahu alayhi wa sallam nee na an naasu niyaabun fa iza maatu intabahu nit ñi dañuy nelaw kañ la ñuy dee kañ la ñuy yeewu xanaa bu ñu dee ndax ruux bi mu duggee ci yaram te yaram di ko dëkk fii ci suuf ñu tabaxi ko ci ban ruux moom bokk ca aadamul malakut di ca leeru yàlla nga xam ne umpalewul dara day xam lépp day nekk fépp kas dañuy mënee su ko waxtaane bi nga xamee ne ruux dugg na ci daal di nekk ci kaso boo xam ne amul bunt amul volontaire amul fu muy gisee dara booba la fàtte ya mu xamoon ci fu mu dëkkoon jëm yëpp ba daal di nekk nii nga xam ne noonu doom la noonu la doom aadama di mel nga xam ne xamul dara ci ëllëg lu ko weesu du ko xam lu ko sori du ko xam loo xam ne miir dox na diggante moom du ko gis waaye boo xamee ne mu ngi dee ba toll foofu attache yooyu nga xam ne dañ na day jànloog adduna bépp day mel ne moom bëti kese dong dong dong la bu ko defee jëfam yooyu yëpp mu jànloog ñoom jëf yu ñaaw yi mbugal la ci moom na mu koy gisee dana doy waar محمد